nekkee naan ëf ëf bu ñu la dóoree rond point case ba ngay dali arbitre bi sifflé na ndeysaan Caatu Malaw ak Ibo Ibo ikiri Kër Mbay Fall Caatu Malaw ikiri Grand Yoff ndeysaan Ibo Caatu Malaw Ibo bu kër Mbay Faal moo la féete càmmoñ jiital tànk càmmoñ Caatu Malaw moo la féete ndijoor jiital ñoom ñaar ku ci nekk garde normal la léwto bi baax na de boo xoolee léwto Ibo bi garde bi baax na de Caatu Malaw mbëru simple la Ibo mbëru simple la bu rax dóor macha ñoom ñaari xale ay bërekat lañ ay xeexkat lañ ndaysaan ndaysaan dóor na Ibo tuuse na ko dóor na kubu dal Thiatou Malo Ibo Ibou macha allah garde bi baax na taxawaay bi na Caatu Malaw garde bi moytuwul ni mu ku mu dugalaat gis nga Caatu Malaw garde bi des na cokkaas na Ibou Caatu Malaw Ibou dóoraat na Ibou Caatu Malaw Ibou Thiatou Malaw Ibou Thiatou Malaw Ibou Thiatou Malaw Thiatou Malaw dóor na wala daa dese moo doon dóor mu remis ko Ibou Thiatou Malaw Ibo Thiatou Malaw Ibo Thiatou Malaw Ibo Thiatou Malaw abi bi sufle na woon na ñaari waxaat na abi sufle waat na Ibo Thiatou Malaw Petit Boy Thiatou Malaw Petit Boy Thiatou Malaw Petit Boy Thiatou Malaw ña ngay lewaatoo ñoom ñaar Petit Boy Thiatou Malaw Petit Boy Thiatou Malaw Ibo Caatu Maalaw Ibo Caatu Ibo Caatu Malaw na jëli ko Ibo jëli na na ko Caatu Malaw tëru xew Ibo Caatu Malaw xew Caatu bañ na Ibo ngi bëgg a tànte Caatu na tànk bi Ibo bañ na xale yi Kër Masar yi ñu ngi ne tekk gisuma waa Grand Yoff waa yënguwuñu xar na ko xar na bi baax na bi baax na bi baax na Ibou daan na ko wala déet Ibou hee doomu kër Mbaye Fall bi daan na waaw waaw Ibou daan na laa ilaaha illallaah jël bu rëy la ko daan Caatu Mangalaw da koo takk yéegu ko fu sori daan ko jël bu amul benn werante laa ilaaha illallaah oh.